ñaareel bi nga xam ne mën nañoo wax ne sëriñ bi daf koy woote gannaaw bi mu ci jaayantee boo demee ci téere Cheikh Mouhamad Lamine Diop Dagana bi mu tuddee irwa un nadim min azbi hubbil xadim di nga ca fekk leetar boo xam ne dafa wax ne sëriñ bi moo ko bind jëmee ko ci bépp murit boo xam ne day wax ne ci moom nga aju moom sëñ Tuubaa daal di wax ne man sëñ Tuubaa digal naa képp koo xam ne wax nga ne ci man nga aju na nga dem jàngi li nga xam ne mooy yëwénal sa pas-pas muy sa tawxiid gannaaw ga nanga dem jàngi li nga xam ne muy yëwénal sa jaamu yàlla muy fiq daa di cité sax wax ne ka ahkaami taharati wa salaati wa zakaati wa saw mi lu ko demee ne attey laab lu ko demee ne attey julli lu ko demee ne attey natt asaka lu ko demee ne attey koor sëriñ bi bi mu waxee loolu daf caa teg sëñ mu njaasan ñëw na ci sànq wa inni takallaftu lakum wala kunna bi tawaalifa yakunu fiha jamiu zalika man sëñ tubaa warlul naa leen duma leen bàyyi ngeen dem ku ne di leen jox ngeen koy jàng waaye maa leen di taalifal taalif yoo xam ne loolu yëpp ca lay nekk fii sëñ mu njaasan tëjee muy laa jadal googu mu wax dawal nu ko moo tax sëriñ bi def lolu ndax buñu bayyi won nañu jàngaleen tawhid kep ke dem ci ash'ari ke dem maturidi kon yoonu mu de tey ji werante yi dana ci bari ndax da nga gis ko xamne maturidi lay dem jangi ke dem jangi ash'ari ke dem jangi pas euh, passu kenen bu ko defee bu nu ci pénc bi ñun murid yi pas-pas yi wuté waye ñun murid yépp ño bok pas-pas ci yalla ndax kenn nañu jangal pas-pas moy seigne touba lu mënu waxut rek nun sirku lañu ko jappé kenn moo nu jàngal fiq te dafa teet wuute yi am ci fiq kenn moo nu jàngal mu tasawuf moom sëñ mooy sëñ tubaa te chatahaat yi boolewu ko ci chatahaat yi boolewu ko ci muy foofu mu daanile loolu it sëñ tubaa daf cee woote bu baax a baax a baax mooy xam-xam moo tax mu wax ne képp koo xam ne daf leen a wax bàyyi leen sakku xam-xam bu ngeen di wër xalifa général iblis ci kaw suuf jàpp leen kooku bu leen rawee dootoo leen gis xalifa ba nee kep képp kuy tere mouride am jang khalifa général iblis ci kaw souf yow momo yow momo lay don dal di wax nak is kullu man lam yatabadar lil ulum ma tafarruqin laha qabla al humum fala yanaalu ghaliban matlubahu nee li gëna bari mom kep ko xamne bi ngay nek ndaw sàkku wo xam-xam nee ñoñu lu rar nga len di gis ñuy am li ñu bëgg ci aduna donte nak lu mëna nek la lu mëna nek la waye li ñuy wax bis bu nekk rek ne yoonu murit lu mënutoon a nekk rek ngay gis mu mën fee nekk li ñu xamoon mooy ndaw li topp juddu di jàng tubaab kooku moom ba muy faatu du xam ci diine dara vacances la ñu koy wutal benn oustaz boo xam ne moo koy fekk si di ko jàngal faatiye bu ko mokkalee jàmbaar la bu ca boolee xul yaa ayyuhal kaafiruuna xul a'uuzu bi rabbin jàmbaar la benn baatub araab bu muy xam lu muy tekki amul léegi ñi nga xam ne ñooy nekk ci université yi amee garaaj yu kawe yi ñooñu dañuy jàng majalis dañuy sax deg lak arab yi meuna jang jàng yi mën ko durus bu baakha baakha baax yeesay sax ñu am sabuk meuna xam lenn ci li ci seigne touba wax ci manam kawmi ndax manam bir mi mom rek ko xam lolu lu jombon la waaye ci yoonu murid dafa nek lu lu meuna nek waye waaye jublu ci point bobu moy serigne bi dafa wo murid yi ci xam-xam ak jang ko ndax da nga deg yeesay sama zargi gi ci ak eppal tax ñuy wax ne yoon wi du yoonu xam-xam wala xam-xam akub murit mënut a ànd déedéet man damay wax ne yoon woo xam ne ku jàng génn ca loola du dëgg te yoonu murit dëgg ci boppam yoon wu murit a ko gën gën a nekk dégg kon kenn mënta wax ne xam-xam day génne nit ki ci yoonu murit ki xam mënta yem ak ki xamut na noonu la ko alxuraan waxe kon xam-xam sëriñ bi da cee soññe bu baax dàqontewut ak ak taalibe ak xam-xam akuk taalibe dàqontewut li dàqonte mooy fi nga xamne ne da nga faa war a ndigal wara fa jëfee ndigal nga jël xam-xam diko fa placer lolu mo dakonté akuk mourid te kat bu boba jëf je wala ndigal la bu mu wuté ak ndigalal yalla ndax lolu la ñu sëñ jang lolu lañu la ñu jang dafa bokk tamit ci sëñ tuba woté muy al adabul mardi muy teggin buñu gëreum yoonu murit sëñtubaa dafa woote bu baax a baax a baax jëmee ci ay teggin bokk na ci ni sëriñ bi daan jàngale murit yi ci di leen xamal waxtu wu nekk nu ñu war a waxe dafa am bi sëriñ bi toogaat mag ñi am xissa bu doy waar bu mu nettali am ca mag ñi ku ne ko mbàkkee loolaa sew sëñ Tuubaa daan ne xanaa ma sàmbakan ni nekku fi ñu ne ko déedéet mbàkke mu ne nañu ko wooye mu ñëw bi ñu wooyee sëñ ma sàmbakan ni sëñ Tuubaa waxaat la mu waxoon sëñ ma Masamba Kanni jug ne ko Mbàkke loolaa ka kaweem xel sëñ Tuubaa ne kooku hakaza nii lañu koy waxee man waxuma lu sew jëfuma lu sew xajuma fu sew xam nga kooku sëriñ bi nga koy corriger di ko xamal naka la ñuy waxee xisa bii sëñ Mandiaye Assane tuddoon sànq sëriñ bee ngi jàngal mag ñi ci boobu sax xëy na jàngal na leen bay xool ndax mokkal nañu mu leen di tari loo ñuy tari day xool waxtu wu nekk seen waxin sama waaje Cheikh Ibrahima Fall mës naa dugg si ci ëttub sëñ Tuubaa ñëw ba ci buntub sëriñ bi lu wér la it fu wér laa ko jële nee ñu daal di teg ay dàll daal di dem ba yàgg mu ñëwaat daal di teg kaala daal di demaat ba yàgg mu ñëw daal teg aw yat dem ba yàgg mu ñëwaat daal di jël ay dem àll teg ca wet ga bi sëñ Tuubaa tijjee daal di ci yam daal di ne ana ko def lii ñu ne ko Ibra Faal ko def mu ne anamu ñu ne ko nekku fi mooy li ma wax sànq ne sëñ tubaa du wax mukk ci gannaaw kenn sëñ tubaa ne nañu ko wooye mu ñëw ñu wooyee Cheikh Ibrahima lamp mu ñëw bi Cheikh Ibrahima Fall dana ko Ibra loo jubloo lii noonu la ko ko waxee néewu ko ana loo jublu ci lii loo jubloo lii la ko wax Cheikh Ibrahima Fall teggin yu bari yee ne ko Mbàkke dama wax ne ku fi sol lii muy dàll yi mbaa nga tegoo fi lii muy kaala gi mbaa nga sol fi lii muy mbaxana mi danaa ko dóor kii muy yat wi ba kii génn muy demaat yi dégg nga limu mu li ku fi sol mbakhana kala dana la dor aw yar ba nga dem all la la wax waye dana ko ku fi sol li mba nga sol fi li mba nga tego fi li dana la dor ki ba li gen da nga xol bobu waxin seigne touba len ko jangal waye waxtu wu nekk tari loli seigne touba da ko jangale ci teggil dama wax ne xamna fofu lay al dong dafa doy dafa doy ci ab mouride mu nek ko exemplaire ci aduna bi dama wax ne nax ju wallahi azim murit bi jàng jeffe ko harfan bi harfin koku fo dem ci aduna fo dem ci aduna biri tubab yu xamut l'islam xamuñ yoonu murit ngay costume moko soli patch sax danañ la naw ولا تقل لأحد ahadin أو قلت غير gayra أو أخطأت أو غيرها gayraha min شيء يسقط ولو صبيا كان فهو غلط مام دا نان لا بول مسا mës a jàkkaarloog nit naan ko bul lok nit nan ko da ngay fen goneeg mag la ci yamalé goné sax bu ko mer la waxuma lak mag né la bis bu nek wala takun fi kulli yawmin tarika taalluman summa bihi amal nasika ni tuba bi di zurnal di jënd journal di ko yow waxtu wu del def bis boo yewo am lu bes lo xam ci aduna am lu bes lo xam ci sa diine nah ju qada al haji buñu ko topon araf par haraf di ko diko di ab murid fumu nek koka sangup ñoña lay doon ci lu wër ci baat bu wër sangub ñoña lay doon mo xam ñoña ñoña ay tubab lañu ñu ñu xamut wala ay julit lañu ñu bokku ci yoonu murit wala wala ñu mëna doon bokku na ca yoyu tuba di di di di di di di di soñe batay ci di ci jëme murit yi te murit yépp war ca wuy ji falay ñaané muy sakku jam sakku jam mi na fo xamne ko waxal mu naan woote ci jàmm dalal dënn yi te fekk xëy na moom ci boppam ay waxam mën naa yëkkati ay dënn waaye jàmm moom defu ko wax képp dañ koy jafe Sëñ Tuubaa dafa waxoon ne yéene ñëpp jàmm ñëpp am jàmm yàlla mayu ko kenn waaye ku yéene ñëpp jàmm dey yow da nga am jàmm yow ku am jàmm nga am jàmm ku amul jàmm nga am jàmm daal di ñuy xamal moom Sëñ tubaa fi jàmm di jóge daal di wax ne inna salaamata wala tata wala dani fi dunya wal akhirati min niyatil khairi wa qawlil khairi wa fi'lil khairi seigne touba dafa wax ne jam jam ngir mu daj jam ci al akhirah kenn munu ko am te ñett yi dajewul ñu ne ko ñett yan la mu ne yene jam ci sa xol te kat seigne touba li ci gëna neex moy lu mu la wax da ko doon mom yan wi fu lil man seigne touba sama xol jam rek la yene nit nee na niyatul xayri moo jiitu faw nga yéene jàmm doog a jëmmal jàmm xawlul xayri faw ngay wax jàmm wa fi'lul xayri faw ngay jëf jàmm waaye ñetti benn bu ci dàqonte Sëñ Tuubaa nee na da ngeen di sonn waaye jàmm du am daal di koy tënk ci benn bay inwi waqul wafaal wa laazim taslami mukarraman rumil ola bi kalimi nee na yéeneel te wax te jëf te sax ci yii bu ngeen ko defee jàmm am muy lan yéenante ko te di ko wax te di ko jëfe bu ngeen ko defee jàmm am yooyu yépp nag moom la sëñ Tuubaa di woo murit yi ñu nekk fa boo gisee mag ñi li tax ñu kawe woon ku mel ne sëñ Masamba ku mel ne Cheikh Ibrahima Fall ku mel ne sëñ Daaru Xasan mag ñooñu nga xam ne fa ñu nekkoon ñooy sang sax tund ya ñu nekkoon ñooy sangé té bañu fay juggé di fekk Seigne Touba benn way la won fa ci tund wa bàyyi fa ay mak ak rak ak nay ak bay ak nijaay bañ démé ci Seigne Touba ñew ñooy sang ya tay ku bokku ci fami ba la ngay xënté wo man kat mbokum Seigne Daru hasan la man kat fall la sant mbokum cheikh ibrahima fall la te pourtant ñoo xeyna askan wépp yamon yemoon waaye ba mu wuyu jee ba Seigne Touba defal ko limu ko defal ci la ñëpp xënté wo sant sant wa ku bokk ak ñom ci bokk gu sori sax dang koy ñoddi di wax ne mak mama mak sama mama nangam ngir lan sëñ tubaa ko defar lan la sëñ tubaa defoon ci ñoom lan la ñu nanguloon sëriñ tubaa bàyyee ko seen bopp ba bu leen leen def leen nangam ñu def bu leen nee bàyyi leen nangam ñu bàyyi dootuñ dootuñ ko dootuñ ko dootuñ ko jafe fi may ñaanee sëñ ma bànji xujja bu ma juumut ci tur wi dafa siyaar si sëñ tubaa sëñ tubaa di ko ñaanal ñaan gu yàgg ba yàgg ne ko ma bangi bo deme bu dara meuna dox sa ak sa borom denko denko la seigne touba daan wax neena mu daal ne ko waawaa mbacke seigne touba ne teuf daal di mu daal di rayo mu dem ba tollu ci buntu ba seigne touba woowaat ko ne ko ma bangi mu ne ko mbacke mu ne ko yegsil mu ñëwaat seigne touba ñaanat ñaan gu gëna yag gu ñëk ga daal ne ko bo deme bu dara meuna dox sa ak sa borom denko mu ne ko waaw mu ne wa teuf daal di teuf li mu demat ba ca buntu ba seigne touba woowaat ko defaat lolou nee na muy xalaat cim xelam naan lii dey lëf la maanaam mbir la sëñ Tuubaa ne ko lëf looloo tax ma bëgg laa yóbbulul àggal suuf mu àgg suuf sëñ Tuubaa ne ko daan ne daan ne ko yàlla mii saa boo ne ka ananga mu ne la maa ngi nii sëñ ma bànj ne ko luy ananga mu ne ko mooy sax ci lim la digal mu ne ko luy maa ngi nii mu ne ko mooy loo bëgg mën ne la fabal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu aleykum wa rahmatullah